sëñ bi Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu di la dalal. maa laa fay. di la jaajëfal bu baax a baax ci euh, wuyu gi yow ngay coordinateur intérimaire bu collectif euh, ngir ñu gën a yaatal village de Ngor muy extension du village de Ngor tey. Mm. Euh, ñu daan dégg collectif gu ëmb ñett muy trio bi mm. Wakam Ngor mm-hmm. Yoff ndax tur dafa wane ne dafa am lu soppeeku wala. déedéet moo ngi fi ba tey. Hmm. ñetti collectif yi ñu ngi fi ba tey. Hmm. sauf que bi ma bi ma wooyee rek si tur boobu laa la mënoon wuyoo mënum la woon a wuyoo si ñetti tur yëpp. Hmm. waaye ñetti collectif yi ñu ngi fi ba tey. te d'ailleurs sax tey lañ war a daje incha allah. ci mardi bi incha allah. d'accord war a daje. Ah, ñu bëggoon a xam euh, déggoon ay euh, coow bu yàggul euh, semaine yi ñu génn ba sax gendarmerie ñëw def intervention ñu bëggoon a xam lan moo waraloon xale yi génn ci mbedd mi di manifeste waaw xale yi de li leen génne c'est très simple yomb na. Mhm. ñoom li ñuy wax mooy ne ñun wax ji dafa bari réunion yi dafa bari ñoom mënatuñoo toog di réunion ak wax. Mhm. loolu moo taxoon ñu génn. Mhm. parce que ñoom jàpp nañ ne ay réunion ki wax mënutul régler lii. Mhm. toll nañ foo xamante ne ñoom génn lañ gis na mooy régler problème bi mhm. waaw. léegi ba ñu génnee ndax euh, nam fa demee euh, dañ cee jàpp ay nit. ñu bëggoon a xam. jàpp nañ fa ay nit. Mhm. wax dëgg yàlla jàpp nañ fa ay nit. toll nañ ci fukk ñaar. Euh, ñu leen def mandat de dépôt. ñu ngi nekk ci cabinet juge d'instruction bi. bu premier cabinet moom moo leen yor doyen des juges moo yor dossier bi. lu leen di toppee. li ñu leen di toppee bare na. Mm. nee nañ yàq nañ loo xamante ne ñëpp ko bokk. Mm. Euh, def nañ outrage à agent. en mm-hmm. service. Mm-hmm. Euh, façon yooyu daal yooyu lañ leen topp man na juróom. Mm-hmm. lañ leen di topp waaw. tey nga foog ne loolu mooy solution bi. solution bi. ah solution bi loolu du solution bi de état bi moo amee solution bi wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek tax état bi moo amee solution bi moom moo war a xëy rek daal di jox. lii dëkk yi di laaj. Mhm. ndax moom moo leen ko ameel moom moo leen ameel nu ñu yaatoo. yàgg ngeen euh, wax ne ñu yokkal leen village euh, maanaam euh, localité yooyu le diwaan yooyu le waaye mhm. dañoo gis ne génn xale yooyu le ba muy am mu mhm. am li nga xam ne moo ko jiitu muy njiitu réew mi doon dalal gaynde yii daal di am lu leen dig ndax loolu moo bokk na ci liy waral xale yi génn ci mbedd mi. waaw kañ bokk na si de waaye nag waralu ko. loolu rek waralu ko. Mm-hmm. bokk na ci bokk na ci li ko yëngal. Mm-hmm. waaye xeex bi jiitu na ko. Mm-hmm. ndax bu ngeen fàttali ko mosoon nañ fee génn ay yooni yoon. waaye bii yoon euh, bii dafa dafa metti xol yi ndax li tax mooy ne euh, dañoo jàpp ne boobu ba tey xale yi dañoo jàpp ne boobu ba tey ñu ngay laaj. état bi te li koy laajee dafa essentiel pour ñun. malheureusement ñii laajuñu. dañoo gañ ab coupe rek ñu ñëw daal di leen ko neexale te laajuñu ko. Mhm. loolu moo loolu moo moo moo metti trop ci xol. waaye ba fi euh, ñun ñëpp dégg-dégg rek la am ne euh, suuf yi bokk na ci nekk euh, boor boobule di Ngor mais dara wóoruñu ne dëgg la. waaw ñu ñii de gisaguñu këyit gu mandargaal ne fii ci Ngor la. gis nañu presse bi bind na ko waaye gisaguñu këyit gu ko wéral ba tey. Mhm. ba fii ñuy waxee ngeen gisaguñu këyit gu ko wéral. Mhm. waaye jàpp nañ ne it jàpp nañ ne fii rek moo des suuf suñu war a mën a joxe su toll noonu. ci suuf googule sax euh, aéroport bi ngeen ko doon euh, waxtaanee tey lan lañ ci mën a jàpp pour xam euh, ndax dëgg-dëgg suuf saa nga wala ba tey nit ñaa ngi koy dagg di jaay. suuf saa ba tey. Hmm. waaye liñ bëgg a wax rek hmm. ñi nga xamante ne ñoo yor ngànk nguur gi ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngànk suuf si ñoom de saa ñu bëggee ñu ngi say dagg lañ say bëgg dagg. saa yi ñu bëggee ñu seddu mhm. loolu lu ñu xam la te lu wér la li tax mooy jàppe ngeen na xamoon ngeen na fii génn nañ ci jamono yële trente hectares mhm. ñu jox ko ñu wax CDC mhm. nga booba ñu ngi taxaw di laaj ñu génnati ñu da génn daggati dix hectares ñu ne parc yi loolu yi dëgg la pendant ce temps ñu ngi toog fii di xaar di laaj ñu toogati ñu ne gaynde yi gañe nañ coupe bi ñu ne dañ leen di daggal bon suuf sa mu nga fa ba tey parce que li tax ñu ne suuf sa mu nga fa ba tey ñun xam nañ ne superficie bi aéroport bi def. Mhm. huit cent soixante quatre hectares la aéroport bi def. Mhm. donc la fa nekk lépp ñun xam nañ ne mënugul jeexi waaye nag waaye nag il faut que état bi am volonté régler problème yi village yi di laaj. Mhm. ndax village yi waxuñu benn yoon ne ñun lañ jox suuf si. dañu ne nañ leen jox fu ñu yaatoo. Mm-hmm. te loolu état bi moo ñu ko amel dëkk bu mel ni Ngor dëkk bu mel ni Ngor mu nekk ci euh, euh, un virgule cinq kilomètres carré village traditionnel bi moom la occupé. Mm-hmm. léegi mu def vingt deux mille habitants au kilomètre carré. Mm-hmm. te norme nationale bi norme nationale bi soixante neuf habitants la au kilomètre carré. def leen def leen calcul yi ngeen xool. Mhm. cela veut dire que ne Ngor mu ngi ci plus de trente cinq mille habitants au kilomètre carré. yéen a ngi imaginer dëkk boobu xataay bi ni mu mel te li ma lay wax Ngor moom moo am Wakaam moom moo am Yoof géej moo féete moo ñu féete ci sunu gannaaw lii nekk sunu kanam euh, euh, euh, almadi bii la ak ak ak ak aéroport bi boo demee Wakaam ay camp rek a ko wër ay camp rek a ko wër te yooyu yëpp noonu la demee te yooyu yëpp suñuy maam dañu kaa joxe te niñ ko joxee et pour construire une république mm-hmm. si loolu lañ leen convaincre ñoom ñu participer noonu lañ participer seen ni tool lañ leen jëlal te xoolal superficie bii ma la wax nii ni mu toll mm-hmm. par rapport ak Sénégal gépp mm-hmm. léegi loolu yëpp jóge fi xam nga dëkk yooyu bu ñu doxee doxee tuuti boo moytul dañuy disparaître parce que amuñu fu ñu yaato kon daal yéen leen seen tiitaange yëpp loolu la suñu tiitaange yëpp loolu la. Mm-hmm. ndax ñun est-ce que tey war nañoo xëy ñu ne ay lébu amoon nañ fi amoon na xeet wu fi nekkoon wu tudd aw ay lébu. Mm-hmm. est-ce que loolu la ñu bëgg loolu la ñu yéene est que loolu la ñuy xaar loolu la ñuy xaar si ñun pour ñu disparaître parce que li koy renforcer encore loolu mooy géej gaa ngi nii dañu ko jaay. Mm-hmm. ñun mu ngi ni géej gi lañ doon liggéey ci lañ doon suturlu xam nga li ëpp suñuy population si géej gi la ñuy liggéey. bu géej gi neexee dëkk bi neex bu géej gi neexul dëkk bi du neex. te bu ñu demee ba si kanam loolu mooy ne dañuy xëy bàyyi fi dëkk bi dem suñu yoon. Mm-hmm. parce que ñu fi xaj. su ma su ma amee tey doom ñaar fukki at ci kanam su ma doom jooju fan lay dëkk. Mm-hmm. ah su may rakk yi nga xamante ne ñu ngi topp si man ak su may jarbaat yi nga xamante ne ñu ngi topp si man fan la ñuy dëkk problème yooyu la am en ce moment là moo tax nit ñi di fanaan si mbedd mi. Mm-hmm. ngeen sumboon ay waxtaan tey fan la toll. waaw waxtaan wi yàggut a yàggu ñëw dab. Hmm. mais ñu ngi am yaakaar ne dinañ ci am solution. Euh, ñu ngi waxtaan. Uh-huh. ñu ngi waxtaan te jàpp nañ ne état bi fi mu nekk mu ngi commencé bàyyi nopp li ñuy wax ndax bu ñu demee ba ndaw ñëw jege si si si si si keppaaru président. Hmm. ñëw di wax ak ñun en l'occurrence fi ñuy wax. le ministre conseiller Mame Mbaye Niang. est-ce que du rek pour fay coow li ndax yéen euh, booy xool Mame Mbaye Niang tamit euh, soriwul côté boobu. waaw moom fii la dëkk. waaw su la bokk. Mhm. fii la dëkk su la bokk wax dëgg yàlla waaye nag ñëwee na fi noonu. te bi mu ta tamit wax nañu ne yëgle yëglu na ak ak ak njiitu réew mi te ànd na seex moom donc li ñu mën a jàpp rek dinañ jàpp ne ndawam la. Mhm. waaw waaw. Mhm. loolu moom mën nañ ko jàpp. tey lan nga euh, foog ne moo waral coow bëri ci suuf. ci mim réew. coow li ko waral de man jàpp naa ne ñi ñuy wax ñi ñu dénk suuf si waa conservation foncière. Hmm. lu si mënti am ñoom lépp ñoom ma. mooy ñan. mooy euh, impôt domaine. Hmm. bi nga xamante ne moo ëmb cadastre ak domaine. li tax mooy fii ñoom dañoo am ay ay ay ay ay prérogatives yoo xamante ne dafa ëpp. Hmm. saa yu leen neexee rek ñu benn place rek dagg def lu leen neex séddu séddaali mhm. aéroport bi li ci ëpp foofu noonu lay demee ak liñ ko wër yëpp mhm. te loolu moo dul dëgg du yoon jàpp naa ne euh, conservation boobu war nañ ko mën a réformer mhm. ba pare war nañ mën a am des contrôleurs yu bokkul ci ñoom. Mm-hmm. nekk fële ci biti di leen saytu. kon daal yow jàpp nga ne ñañ ko dénk lañ ko warul dénk ñoom euh, wala sax ñoo deful seen rôle normalement. dénk leen ko lu war la. Mm-hmm. waaye nañ koy téye loolu lañ war a xoolaat. Mm-hmm. nañu koy téye loolu lañ a xoolaat ba pare mu am ñu leen di saytu ñoo xamante bokkuñu fa nekk feneen te di leen contrôler. d'accord parce que ñoom ñoom ñoo yor suuf si ñoom ñooy contrôler. ñoom ñoo lay wax ndax baax na wala baaxul ñoom ñoo lépp ñoom ñoo ko yor ñooy ñooy arbitré. dëgg la. xam nga loolu problème la. Mm-hmm. ba boo xëyee def morcellement dagg nu mu leen neexee. mais ñaata yoon la directeur yi nekk foofu di am problème si wàllu suuf. Mm-hmm. ñaata yoon seen responsable yi régulièrement dañu am ay problème si suuf si. Mm-hmm. waaw te loolu moo ko waral. ndaw yi ñu jàpp keroog ci manifestation yi. seen euh, dossier bi nu mu demee ndax yëngatu na wala seex ni ñaa ngi ciy amal médiation. ñu ngi ñu ngi si amal médiation waaye xam nga médiation wàllu justice moom du lu ñuy mën a wax parce que li ñuy wax waxtu justice ak waxtu <laughs> waxtu nit ñi bokkul. Mm-hmm. ñoom moom seen dox ak ñun nit ñuy bokkul. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla ñu ngi siy jëm ay ay ay am na ñu si jox tànku jàmm daal am na si jox tànku jàmm. kon tey daal euh, coow moom kenn dootu leen déggaat euh, mag ñoom lan la ñu wax ci mbir mi. coow kenn dootu leen déggaat de loolu moom man man moom je ne suis pas dépositaire de coow. ñun collectif bi aussi pas dépositaire de coow waaye daal li ñu xam mooy leen. Hmm. état bi daal moom moo amee pour def solution si lii. Hmm. ah ñun nag ñun suñuy dëkk yi ñun ñëpp ñoo bokk benn kàddu. Hmm. ñun ñëpp d'accord nañ ne li ñuy laaj ñii ñun ñëpp d'accord nañ ci. te lu war a am la mag ak ndaw mhm. góor ak jigéen képp ku bokk ci collectivité bi d'accord nga ci li ñuy laaj nii mhm. waaw suñuy mag yi ànd nañoo ak ci li ñuy def nii wax dëgg yàlla ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Mamadou Ndiaye ngay coordinateur intérimaire bu collectif pour l'extension du village de Ngor. jërëjëf jërëjëf Elisabeth ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. merci ci bi ngeen ko def. merci beaucoup.